waaw maa leen di ñu jaale di bokk ak tiis wi. waaw yow yaa ngi koy jaal dellu maa ngi dellu di leen jaal di rafetlu ci bis bi. ngay waajur bu góor lekk nga mën a seedeel sa doom. bon moom moom vraiment bëriwul je suis fier de lui j'étais fier de vraiment waaw kontaan naa ci moom trop kontaan naa ci moom trop. feebar bi muy doxalee daf ko sonaloon depuis bu mu nekkee xale. bon feebar moom day dem di ñëw day dem di ñëw mais quand on géré on a tout le temps on a géré. Et euh, voilà, on a géré la chose. Un centre à jusqu'à présent. Mm-hmm. Voilà. que feebar bi moo ko yàqal ay étudiants. non il a étudié il a fait un cycle normal mm-hmm. euh, des fois il s'absente il s'absente des cours avec de la maladie mais ça ne l'empêche pas de faire un cycle normal mm-hmm. il a fait CI c'est normal quoi comme tous les autres élèves mm-hmm. mais oui. boo amee mooy fàttali ko ci sa doom ay soxla wala yoo xam ne rek marqué na la lool ci seen diggante yi Bon, y a beaucoup de y a beaucoup de y a beaucoup de Bon, on a l'habitude d'aller au village, à Kédougou. On est bien là-bas. J'apprécie. J'ai beaucoup apprécié ça. ban rek nga xam sa tête Bon, y a beaucoup de y a beaucoup de te xam naa ni bëgg na bëgg na bëgg na rakk ni bëgg na ma leen te ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu kan nga yëg ne ñu ko hospitalisé fële ci hôpital non moi je suis là-bas je suis je suis là-bas on m'a appelé vendredi hôpital on l'a amené à Yassou je profite de cette occasion de remercier tout, tout, tout, tout, le personnel de, de l'hôpital militaire de l'ensemble. Bon, à chaque moment, ils ont soutenu, ils ont été présents au moment où ils étaient dans le besoin. Et je profite de l'occasion pour remercier tout le personnel de l'hôpital militaire de l'ensemble. Franchement, chapeau pour eux. bi mu nekkee hôpital ana yenn kàddu rek nga Bon, ça va, dans la guerre, parce qu'il a entamé, il a entamé. Bon, il avait le moral quand même, quoi. Il a vraiment, il a eu le moral. Il a eu le moral jusqu'au dernier moment. Et c'est un croyant aussi, hein, c'est un croyant. Oui, Une grande vie. Une grande vie aussi. Et c'est un croyant aussi, hein, c'est un croyant. Oui, Une grande vie. Drabil o tudd Drabil jékki bés yëpp daal lu mu def noonu la kenn mënu si dara mënu si dara kenn mënu si dara waaw bon nee na daal ak jënd yi salaamaaleykum daal ci sama bépp ba mu lay wax ne Eddy mi damay dem xalaatoo woon ni dem boobu la lay wax. non xalaatuma ko xalaatuma ko. anecdote la ñu mën a raconter ci moom. ginnaaw bi sax Mohamed Momo Camara Mohamed يا أيها النفس المطمئنة ارجعوا إلى ربك رضيت الخبر وادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي آمين dafa ñu leen di nuyu ñëpp di sant mbooloo di sant li ko loolu mu defoon di sant kilifa yi ci teew ñu leen jàpp ñu ay borom xam-xam ñu xam seen bari sax dañ koo ci nee na mi ngi leen di gërëm bu baax di gërëm ñi teew ñëpp di gërëm itam waa Dakar ak ay bokkam yu jóge Dakar xanaa léegi ma ne maamam suba moo ne Mouhamed mii de moo ma jàngal ma am jur yaay kii moo ma jàngal amal woon kii moo ma jàngal ahaaji da daw dama ko jàngal